d'abord euh, di di sant yàlla bu bu baax a baax parce que man saa wu ma euh, jullee dama doon ñaan yàlla def président Macky Sall jël décision bi gën ci Sénégal parce que au finish loolu rek mu ëpp solo kon bu jëlee décision bi man damay jàpp ne rek ni euh, yàlla loolu namm parce que moo gën ci Sénégal bu au niveau de la coalition Gor euh, ñun tegoon hypothèse hypothèse bu bi moy président nek candidat parce que lu war lu war mëna nek la bi candidat présentement option bobu la bi ci euh, ñu élection yi donc ñun amul une euh, hypothèse parce que aussi euh, ci coalition bi la nekk président Macky Sall euh, daf naa ni avant muy am nguur lañu ànd ak moom kon am na lu ñu xam ci euh, ci moom bi ci tegu nag mooy am na ñoo xam ni dëgg-dëgg war nañ ko jégglu parce que weer yu weer yi ñu génn yépp lu mu def pas acte bu mu teg réalisation bu mu def seen yoon nekku ci lu baax ñu taxal ko Euh, lépp ñu ramane ko ci affaire troisième mandat am na ñoo xamante ne sax daanaka li may wax ni dañoo doon liggéey ci entreprise bu tuddee troisième mandat xam naa ñooñu dinañu am problème parce que seen lépp muy ay ñoo xam ne ci presse lañu la ñu nekk ñoo xam ay activistes lañu ñii ay politiciens lépp lépp lépp lu ñu wax sénégalais yi euh, lu ñu xalaat euh, ci si ci ci wàllu programme ci wàllu éducation wàllu santé wàllu économie doo leen ci dégg moom troisième mandat rek. Macky Sall na dem alors bu yàlla defee li mu def ni tey ñooñu dañu noppal le président de la république parce que nañ ko nañ ko ba ca kanamu ah bi ci euh, parce que yombul parce que euh, constitution bi nga euh, mu mu mu mandam mais constitution euh, donc moko téré mo mu taxaw naan euh man euh, donc euh, kii bi moy sama dernier mandat donc ñepp xam nañu ni le mandat là le premier mandat était hors de portée donc donc de de la réforme loolu ñepp xam nañ ko ku jang ku jàngul maintenant nak bu jëlé décision bi ñun dañ koy refet lu baax parce que décision bi mom en tant que président de la république li mu dund. ci ci Sénégal euh, ci ci weer yi ñu ñu ñu jël ci jàngat ci information yi mu am xam na ni d'abord tey Sénégal fi mu toll mu ngi à la croisée des chemins te li ëpp solo ñun ñëpp ñu war ko bàyyi xel sax bàyyiwuñ ko xel ndax ñëpp leen intéressé woon sax mooy ndax dina nekk candidat wala du nekk candidat mais li mu njëkk a wax mooy les aspects sécuritaires loolu ñu ay force occultes wala ay forces obscures ku ne xam na ni tey Sénégal. Ema di muy deme, dem université di kotal, ah, di tal ay ay ay ay ay corbillard di fek ay bijouterie alol jamur nga yàq ko fekk jamur jàmbur nga tal ko lol daaw fi am kon sénégal dafa am ay gan yoo xamante ni bii dëgg dëgg nguur gi war na leen lijjanti moo tax euh, rafetlu na trop président Macky Sall euh, malgré que euh, du represente wu mu jàpp ni sécurité Sénégal mooy li ëpp solo parce que bu sécurité amul constitution du du am. c'est clair Burkina Faso taluñu constitution Mali gii bu ñu wootee pour <laughs> référendum amuñu sax 40 pour cent am na foo xamante ni fii wote amu fa donc loolu lu am solo li ci tegu nag mooy di ko féliciter bu baax parce que il est entré par la grande porte il va sortir par la très grande porte.